Euh, comme ñëpp ah kontaan si si li mu def parce que ñenn ñi sax daan nañ ko raay mais ma daaw ma ko raay dama ko ne ko luy soo defalee minimum jarul ngay dem Jeux olympiques jarul ngay dem ay championnat du monde parce que dem nga ñaari yoon championnat du monde benn yoon Jeux olympiques ah invitation bàyyil ñeneen ñu jox leen invitation mu ne ma papa dinaa def minimum donc euh, am na mental pour def euh, minimum donc vraiment tout le mérite moom la vraiment parce que dafa liggéey. liggéey parce que ñu bari dinañu wax ne mais lu muy def Sénégal est-ce que du dem États-Unis du dem feneen feneen muy Mbacké nekk na champion du monde fii ci centre bi ah, Amantele muccoon nekk na champion du monde fii ci centre bi parce que conditions yi ñuy am fii de ay conditions yu baax la lenn rek moo manqué fii au niveau du du Sénégal à Afrique c'est de grandes compétitions donc moo tax ñoom dañuy entraîner ba fee ba avril daw hiver bi fëre nga xam ne su ñu demee Europe dina fekk mu xaw a tàng ñu mën a daw ñu mën a def ay performance yu mel noonu donc euh, tout le mérite pour lui la vraiment euh, lu mu def euh, lu rëy la parce que onzième performance mondiale te soo xoolee si ñeneen ñi am na ay américains ko jiitu soo parce que américains ñett la am droit pour ñu def championnat ni monde yi soo dundee ñeneen ñi si des donc xamal ne mi ngi presque mun na dugg final donc désormais onze meilleurs des meilleurs dans sa catégorie la meilleure performance mondiale sur 110 mètres haies. 110 mètres moo yore meilleure performance mondiale donc soo xoolee fu mu nekk France su nekkoon euh, français mooy le premier donc dafa progresser parce que lui depuis 2017 la commencé à entraîner yàgg naa ko wax fii si plateau bi souvent dañu may wax ne Diaba pourquoi euh, yow rek yaa am médaille olympique pourquoi ñeneen ñi amuñu médaille olympique tout le temps même réponse yi laa leen wax ku nekkul ci huit premiers mondial pendant des années mënoo gagné dara. bu dem par wild card mënoo gagné dara jeux olympiques yi ñu mujj dem wild card dañu demee donc mun ñu fa am lu ñuy xalaat donc euh, moo tax ñu ngi tàngat suñu si athlètes yi pour ñu mën a def comme lui mën a def ay minima yoo xam ne ne tu te tu te places parmi les huit meilleurs du monde parce que ñun suñu objectif loolu la. Mm-hmm. ah pour mu nekk dans les huit meilleurs mais ndànk-ndànk rek parce que moom depuis 2017 mi ngi liggéey. 2017 mi ngi liggéey. 2017 il est en train de travailler il est il est dans dans dans dans le dans dans le centre. centre bi nag ñu koy gërëmee suñu directeur général Lamine Fati parce que moom moo xeex ba centre bi ubbi parce que soo xoolee football lan moo tax mu avancé actuellement mais depuis 2002 on a fait ay des académies ay jàmbaar ay mm. génération foot yooyu la suñu meilleurs joueurs yi ngay gis ñu ne actuellement yooyu foofu la ñu donc ñun yeneen discipline il faut ñu am yu mel noonu moo tax euh, ñuy ñuy gërëm suñu suñu directeur général lu mu imposer ba ñu am centre bi parce que centre bi su amuloon peut-être ay luy mun nañu mun nañ si ñàkk am ñàkk nañu ay luy yu bari tamit mais dina permettre ñu entraîner ay athlètes pour leur mettre sur le haut niveau xoolal 2017 ba léegi ñaata at la war na mat cinq an six ans mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi góorgóorlu mi ngi entraîner pour pour arriver à ça loolu moom ma neex si moom mental bi mu am moom ma neex si lui parce que lui il il, il mettait deux heures et ou trois heures fu mu dëkk di ñëw pour entraînement. justement avant muy ñëw si centre bi. Mm-hmm. donc euh, yooyu yooyu yëpp dalay lay mm-hmm. donc moo tax euh, résultat bi moom la déjà fédération sénégalaise d'athlétisme aussi il faut que parce que il appartient à une fédération. fédération tamit ñu ngi liggéey vraiment pour nga kii mais tamit aussi y a le comité olympique qui a qui lui a donné une bourse d'excellence. pour ñu préparer pour qualifier aux Jeux olympiques donc du moom moom moo njëkk a qualifié mais yaakaar nañu ne ñeneen ñi presque président Diagne Ndiaye en aux Jeux olympiques de Tokyo bi ñu paree dafa ñëw ak meram daane mais ñun Sénégal mais lan moo tax mënuñu kii ñun Ibrahima Wade mi ngi toog premier vice président Seydina secrétaire général et on lui a dit voilà su fekkee ne jàppale nañu ay certains athlètes notre élite dinañu mën a réussir bourse bi rek du doy mu ne su fekkee ne loolu rek moom dina def kétalaay kantanam pour ñu jàpp daal d' accord donc, après euh, dinañ ñëw ci somme boobu. donc par rapport ak moo moo tax ma ne la. donc cette solidarité olympique là ñu. faaw ñu ñëw si bourse euh, tamit. Euh, ah, ñi ko jàppale ñëpp te moom laa lay wax ah comme CA jàpp na si Conféges tamit jàppale woon na ko à un mm. aussi il faut il faut voir la fédération ñëpp lépp daal daal dafa nekk si lu yàgg daal. Mm-hmm. lu yomb rek ñu mu mu mu ñor lay quoi duñ ko yàgg. topp di ko defar te am na yeneen athlètes yoo xam ne tamit suñu jaaree nii du moom rek moo nar a def performance parce que am na yeneen athlètes yoo xam ne mën ñu def euh, mën ñu def performance comme moom.